kon kon dañuy dugg rek ci actualité ñu gis ne yow da nga def émission bu am solo bu tudd xalaas émission boobu ba danga fay joxe ay faits divers yu bëri ñu gis ne fan yi dafa am lu xew ci réew mi mooy ña nga xam ne dañoo nekk ay activistes ñu tuumaal leen ci mbir ba nga xam ne dafa nekk ci affaire de trafic de euh, passeport diplomatique yow loolu noonu bi nga ko déggee ban effet la la def. waaw loolu bi ma ko déggee comme ni mu ni mu choqué Sénégal yëpp la ma choqué. rek ñuy ñaan yàlla rek na justice def liggéeyam képp ku ca laale justice def la ko war ku ca laalewul it justice def la ko war ni ko Sénégalais yëpp déggee laa ko déggee donc mu doon affaire boo xam ne xam naa ne su fekkee li leen di tuumaal dëgg la kenn rafetlu wu ko ñuy ñaan yàlla rek na ci waaw képp koo xam ne daal laale nga ci justice def li nga xam ne moom moom la war a def su fekkee tamit am na ci ñoo xam ne dañu innocent ay innocent la ñu ñu libéré leen que Sénégal nit ñi continuer doxi seen i liggéey. ma yaakaar ne yow yaay inspecteur Ndoye Bane xanaa wa nga ci defay enquête xam nga ci dara. non inspecteur lu ma nekk nekk inspecteur nag lu ma xamul dara dama naan xaw ma ci dara. inspecteur waaw mais bii nag defuma ci enquête moom. defoo ci enquête que moment boobu maa ngi woon ci yeneen liggéey. voilà xam nga information day am coow loolu rek nekku fi comme coow am na yeneen i coow suy gars yi nekkee ci man damay nekk ca ya ca des. ginnaaw coowul passeport li coow li bari na lool waaye wax dëgg yàlla xaw ma ca dara te sama yaay daan na wax naan ma xam nga xaw ma ca dara dugalul kenn kaso coowul passeport bi ni ko sénégalais yëpp déggee noonu laa ko déggee mais man aw ma ci benn information aw ma ci benn xibaar gëstuwu ma ci tamit su ma ci gëstu naa ci xam dara mais jëw ma ci gëstu jëw ma ci def dara. ndooy dañ lay nangu loolu waaye tamit dafa am lu ci xew mooy dañ leen a filmer à leur maanaam dañ leen a te yëgaluñ leen ba pare. partager eh, seen vidéo yi ci euh, internet bi yow loolu ban gësit nga ci am ci société bi ni muy doxee ñu dem bay filmer ay doomu aadama di ko tas. waaw lu boobu def boppam àdduna bi ku nekk ak ak sa kur soo wéetee rek xam sa bopp lu waay def rek boppam voilà donc daal ka ka nga xam ne moom moo filmé su fekkee li mu def loi bi da koy tere ah yàlla ko. loi da koy tere. waaw waaw loi bi dégg moo tax su ma loi bi da koy tere na ko euh, nu mu tëddati loi bi dal rek. kañ filmer tamit su fekkee la mu doon def loi bi da koy tere na ko yan bi daal rek surtout tout bu ñu fi nekk di protéger kenn mais xibaaru affaire euh, passeport yi moom man dama ci xamul daal parce que man duma tukki tukkikat man benn yoon laa mos a génn Sénégal ñaarul man sama lépp Sénégal la sama xel du frôlé sax ay génn tukki nii nii nii nii accidentellement laa tukki woon donc man ay passeport ak ay visa ak yooyu man yooyu yënguwuma ci yooyu xaw ci lu bari moo tax yooyu du ma intéressé. tamit leneen lu ñu déggaat mooy li li tax nit ñi tamit gën cee jaaxle mooy dama dem ba dégg ñi nga xam ne dañ leen a dénk baatu askan bi mooy ay député ñi nga xam ne ñooy toogal fii waa réew mi ñu dem ba dégg leen ci ay trafic de passeport ak yu demee noonu mais loolu tamit soo déggee li nga xam ne dégg nañ ko ci activiste yi nga ñëwaat déggu ci député yi yow loolu ban effet la la def. effet mooy su fekkee lan leen di jiin dëgg la. parce que fi mu nii kenn mënu koo firndeel su fekkee leen leen jiin dem dëgg la la ma waxoon fa rek laa lay waxaat leen leen yat wi daal amul député amul ministre amul activiste amul journaliste ku def lu dul yoon na la yoon teg ci yoon surtout tout loolu la rek